بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة جلنا نجي سنو سنغ أبو هريرة وأبي سعيد الخدري أكي سنو سنغ أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما يأن يالا بولي لين gërëm annahuma shahida ala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal ñu ne seede nañ ne fekkee nañ yonantu sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne laa yaquudu <clears throat> laa yaquudu qawmun yadkuruuna allaha azza wa jal illaa xafathum almalaika aw nit duñu toog di tudd yàlla mu màgg mi yàlla mu tedd mi te màgg lu dul ne malaaka yaa ngi leen peek wa ghashiyatuhumu rahma yërmande yàlla dikkal leen muur leen wa nazalat alayhimu sakina dal dal wàcc ci ñoom wa dakarahum allahu fi man inda yàlla tudd leen ca ñafa moom maanaam fu aw nit toogee di tudd yàlla ñeenti xéwal yi yàlla dana leen ko jox malaaka yi danañ leen peeg te jotaayu malaaka jotaayu yërmande la moo tax yërmande dikkal leen te fu yërmande dikk dal am fa moo tax dal wàcc ci ñoom te yàlla ku dalut du jubook yow ba ñu dalee nag mu jubook ñoom ba tudd leen ci xadaraam moom yàlla booboo ci gën a rëy foo gisee aw nit ñuy tudd yàlla fexeel bokk ca ndax malaaka yaa nga fa yërmande yàlla nga fa dala nga fa bi ci gëna neex gën ci màgg mooy sama borom dana tudd ku fa toog sama borom mentionné la amul xéwal gu ni toll moo tax Sayyiduna Ubay ba ko yonantu ne sama borom moo ma digal ma jàng ci yow ma jàngal la lam yakuni alladina kafaru mu ne ko sama borom tudd na ma ci sama tur mu ne ko waaw bëtam xelli rongañ muy jooy nañ yàlla boole ci ñamuy tudd abadan wa dawman booleñ ci ñooñ xadaraam booleñ ci ñooñ xadaraay yonantu sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ñooñ texe léegi ba faw hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk